boo ca nekkul dara du la ca fekk. Mhm. jërëjëf Pape jàll Diallo. Mhm. jërëjëfaat Pape Bouba jàll ginnaaw bi ma jaajëfalee Serigne Bamba Xaadim Rasul jëwriñ yonent bi mhm. ndaxte nit ki doo ragal féete ragal féete day xañ a wërsëg waaw ma ne man maa ngi fàttaliku quand le le fameux journal attitré La République à genoux Ablaye Wade était devant Serigne Saliou sukk ci kanamam ñu xëy titré ne La République à genoux waaw lu tax destitution de ses fonctions xanaa amuloon ministre de l' intérieur Macky Sall le président de la république keroog bi ko Ablaye Wade ne dangaa luubal daa daw dem ci sëriñ sëñ Baara waxuma la fanaan waxuma la sukk ci ndes lañ ko toogal bu ñu wut ñoo mu xaar ba sëriñ bi ñaanal ko njekk kon jàpp naa ni yabaate mënta paase nit gis kilifaam jox ko loxo sukkal ko et puis gàcce sax dafa war a am nag gàcce dafa war a am nag gàcce gu rëy war a am ne na Aïcha ci naka parce que bërki démb ak tey man gis naa le ministre de l'intérieur parce que benn généraux hmm. benn général ñemewul a dàq benn nit benn policier sans la signature du ministre de l'intérieur hmm. selon mes informations ci ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi ma am le ministre de l'intérieur a été élevé éduqué par Serigne Saliou wow. le fameux Serigne Saliou nit ku baax kooku mm-hmm. kilifa diine boobu ki yaakaari àdduna yaakaari jaam ñi tey ak ëllëg jàpp naa ne moom il était mieux placé pour comprendre lan mooy gis sa sëriñ sargal ko mm-hmm. sàbbal ko ndax moom waxuma la dañ ko gis en mode ramologie de mm-hmm. en mode tëddalogie lañ ko gis <laughs> mu tëdd ci kaw sëriñ baara mu sell mu baax mi kon jàpp naa ni lii nii bu fekkente ni c'est un complot contre le mouridisme je nal ju ma sori bay l'islam gis nga mouridisme moom ginnaaw këri giléem la kaw la jëm te du commencé ci moom ndax tàmbalewul ci moom te du ci yem waaye comme ku fi ne bal bi yaa koy yor yaa koy wëndeel yaa ko war a doxal la lutte contre de le mouridisme du arrêté. d'accord alors Diegui est-ce que mën nañ jàpp ne que euh, complot la wala peut-être euh, euh, xeex wala daaneel wala une lutte contre le. mouridisme parce que dañuy dégg ñu ne euh, agent de tenue warul sax euh, euh, jéeg warul sax sëgg ci kanamu président de la République lool tamit naka lañ koy naka lañ koy analyser. Nana Aïcha merci beaucoup mais je tenais d'abord ma fi ma souhaiter les joyeux anniversaire. parce que sama jumelle nga presque tu es né le 15 janvier moi le 16 janvier ma lay ñaanal gudd fan ak wér. Mm. di la wax yàlla na ko fekkee ay at yu bëree bëri. mënu ma gëm loolu ndax lu tax. le président Macky Sall son excellence mooy président bi nga xamante ni li mu defal kilifa diine yëpp gisaguñu benn président bi ko def bi mu toogee léegi depuis 1960 ba tey d' abord <laughs> déglu nga analyser ba mu neex la la deuxième chose le président nit koo xamante ni tey jii pour ñu ne kii fii la bokk sax day jafe ndax yiw ak yar képp ku kilifa diine ku nekk si biir Sénégal rawatina sëñ Mountakha Bassirou mi nga xamante ni ku ko xool am mbégte booy dama ni Sénégal est ce que mës nañ fi gis murit wala tijaan ñuy xeex Sénégal est-ce que mës nañ fi gis képp ko diggante jullit sax ak chrétien ñu xeex barki dem moo njaay le président recevoir clergé bi dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 xam nga lan laay wax nañu woote jàmm. nañu woote booloo maintenant nag am na loo xam da nga ma ci poser question am na ce qu'on appelle il faut lire ou dire le droit comme tu l'as dit am na loo xamante ne binduñu ko institutionnaliser wuñ ko nekkul au niveau de la constitution ni au niveau des lois mais dafa am loo xam ne c'est la pratique de tous les jours quand on dit un policier wala képp kuy sol tenue dafa am incarnation dafa am institution boo xam ne moom ngay incarner di ko taxawal ba tax na koo xeexal mu dellu ginnaaw koo arrêté mu taxaw koo sifflé mu taxaw te nekkul sa jëmm kese mais parce que li nga taxaw la li ngay incarné la ñëpp war a yem au même dans le principe dans le principe mais nee nañu il a été euh, sanctionné man gisaguma këyit bi am naa droit wax balaa may man en tant que juriste waaw en, tant que juriste apprenti juriste boobu j'attends à ce que tey bu ñu ma tegaloon par exemple sa taw maam ma waay bàyyi ma continuer. non d'accord moom am na si aussi buñ ma indiloon tey jii këyitam bi nga xamante ne dafa ne licenciement ba ma lire le motif. Mhm. en ce temps là nee na Aïcha en tant que juriste. je pourrais par exemple ni lii motif bi li est-ce que c'est un motif valable pour licenciement ou pas mais au-delà de tout ça. Mhm. moi je pense que dañoo nekk di liggéey ensemble nekk ensemble état nag ay nit rekk a ko yore war a mën a juum. Mhm. moi je trouve que mënoon dañ ko defal un wala ñu defal ko loo xamante ni dañ koy wax bu ko defaat. waaye wax ni parce que màggal bi la woon après dañu bëgg a xeex sëñ Modou Kara wala lii wala laa je trouve que non sens la et c'est très exagéré de ma part mm-hmm. parce que le le problème des mm-hmm. cités religieuses le problème de la religion le problème des tarixa mës a am dans notre pays et du tey lay am un état nag. Mhm. tu es chargé de la gestion de cité de la cité. Mhm. nañu xoolaat nan la ñuy defaraatee yi fii. parce que man comme li ma la wax rek mënuma ci joxe benn position bu tranché. Mhm. d'autant plus que gisuma les motifs du licenciement. mais sama akulaay taalaa man lan laa wax en tant que talibé cheikh ak ku nekk am koo gëm ku nekk am sa wasila. mënoon nañ ko jël. jox ko par exemple un avertissement wala quelque de plus grave mais pas un licenciement. alors lii mooy sama avis man. pour rappel euh, essayé nañ sax euh, contacter wala rapproché wu euh, ci ci ci ci yenn ci ay autorités mais ils nous ont soutenu ils nous ont dit que amuñu droit prononcé wu tant que seen hiérarchie permettre leen ko. mais euh, juste pour dire alors ma dem ci yow Omar Faye yow tamit naka ngay analyser loolu laata ñuy dugg ci ci waxtaan bi bon après toi. waaw cest man li ma jàpp mooy. amul lu mu def. ci lii ngay sukkandiku nguur bu xamante ni ne jàmm waxuñu si dara man ci nguur gi laa ko gisee duñu wax développement duñu wax visio fii la ministre de l'intérieur taxaw Pastef di def collecte mu ne li ngeen def teguleeku leen si yoon mettre leen en ne parti yëpp lay tëj barki démb ba muy dem si sëñ Muntaxa ñëw di génne xaalis loolu du yëfu nguur hmm. nguur booy jox kilifa da nga koy def ci baatin mais saak la yor génn ko loolu amul fenn c'est la première fois. Mm-hmm. il faut que le ministre de l'intérieur image boobu d'ailleurs ñu woon nañ mais loolu loolu loolu kenn ñu ngi koy door a gis mosul am il faut que le ministre de l'intérieur sache qu'il n'est pas au tribunal ça c'est le ministère de l'intérieur bu fekkee ne fële day jël jël ay décision bokkul ak fii. bu mu def amalgame boobu mais li mu acte bi ñu posé mooy wane ne tous les policiers mourides sont en danger mm-hmm. et ils peuvent à tout moment être sanctionnés et même ñi nga xamante ne tey duñu duñu duñu yi nga xamante ne si yeneen tarixa lañ bokk. mais mais mais Omar Faye discours boobu tamit est-ce que c'est pas dangereux. quand même ñuy c'est pas c'est pas dangereux. parce que c'est des actes l'acte que l'acte que le ministre a posé c'est ça qui est dangereux. ñëpp Sénégal gi xam nañ ne foi ko yor gëm-gëm ko yor bu du woon Touba bu du woon Tiwaawan bu du woon Yoof bu du woon bu du woon Kaolack bu du woon feneen réew mujj ci toll fi ñu toll ndax saa yu ñu nekkee si nguuta nekk ci problème ñoom ñëpp foofu la ñuy jëm affaire blanchiment d'argent bi ñu koy tuumal Macky sàll ñu war ko yóbbu ñu yor ko war yóbbu on était là-bas nous tous que sëñ Baara la dem fa la toog fa la fanaan ne boo si jàppul mag ab Wade mooy tëj lu fay def Donc si aujourd'hui il pose de tels actes, ça veut dire que c'est pas le policier qui été visé, mais c'est le mouridisme. Parce que ñun suñu bopp non ñun suñu bopp laa la wax commencé nañ kat ci daayira laa bokk murid koo ci laal kenn ñëpp jóg te loolu moo am suñu daayira ci moom commencé nañu def collecte pour dimbali ki nga xamante ni moom lañu ko jindi comme ni nga xamante ni de par son pragmatisme moom la bëgg a teg te c'est ça la fibre mouride mm-hmm. immédiatement bi ñu jëlee bi ñu koy bi ñu koy rajee li mu njëkk a def mooy jël naa la ça veut dire loolu mooy mouridisme kenn du laal seeni nit d'autant plus que moom deful ay gëm-gëm la foi la ñaata policiers ngay gis bu sëñ bi di rombee ñuy yuux wala di wane seen bopp ñaan ak ñeneen ci yeneen tarixa wala ci yeneen ak yeneen nga ñëw tey ci def posé kenn ak c'est parce que dañu am un gouvernement boo xamante ni nguur goo xamante ni nguuru cuune la nguuru fitna la cest à boo xamul looy liggéey xamoo looy def ci réew ci nee nga mën a dundee cest à ñoom ñoo mënul bu teg si réew mi ci